gën noo gàtt As Ndaw Ndoukoumane ak mbooleem ñi génnee daaray Koki ñooy am mbégte di leen yëgal ak di sàkku seen teewaay ci xew jëm ci lancement officiel projet bi ñu duppee Wajaahidu dañoo benn sas junni million la daara Koki soxla benn fan ci weeru avril 2023 lay doon ca Grand Théâtre National bu Ndakaaru والقلم وما يسطرون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 asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu anta bi ni'mati rabbika bi majnuun soko dini damal lagati saati bar mooman ugal arab law dana ak sagan baba ko ñaax ci xarnu bi ya ci saa jënd mbër من الدنيا لوتنا هذا المفاقر عيسى جل الكرم وفاز بالقرب والوان بالخدم ابو القديم ومصباح طريقته باستنارت لمن يمشي بلا زلم فدنادي مناريب ماخز يقز بر كريم جواد مخجود يمين رب الجفان التي دابا خدم تلات بالرز والأهم والأخباز والدزم وبمتاع معراك لمفتقر بسبح لي ضيفي من هرب ومن عجم أما دايا لا تساءل عاد بالنطق بالفم أو بالخط بالقلم وزير شيخ على رغم الرشود فكم أحتى ما فاق من باد ومكتتم مالي لمصر ولا فيما أوى عرب لكن بتجار أروب درا تميمي عيسى ابن مريم عيسى جن قد سطعت أنواره فاعتدى بالفل كل أمين ونال ما لمن أسرار تربية أدا غدا بين أهلي سبغك العالمين أتى لما يا مولانا وزاد بين الإسلام سن بلا حزن ولا آلمين بعاقي أستاذنا المفدال يا مدمن هو الخديم بما أياه الخدمين عليه رضوان ربي دائما أبدا ما جاد بالجود والمعمول جود كرم عليه رضوان ربي دائما أبدا ما جاد بالجود والمعمول جود كرم mbokki internet yi bàyyi xel Tawfekh Production depuis ce matin ngeen ñuy suivre en direct Euh, ñi ngi fii ci CICES euh, cette salle mythique bi nga xamante ni moo abrité euh, cinquième édition bu journée culturelle dédiée à Cheikh Issa Diène ba tey ngeen gis donc bale autorité yi nga xam ne mi ngi fii am ku wax barab bi di nga wax tamit ñi nga xam ne ñoom di kilifay yi nekk ci càmm ji moo xam rawatina bokk moom yi ak ci càmm ji di état bi en tout cas fii nii ci wàllum barab bi nga xam ne fi la ñuy amalee mbir mi soriwul dara ci Parcelles Assainies adjoint agent au maire mi ngi fii teewal teewal fi teew fi bokk teewal fi kilifaam euh, fi nga xam te moom moo di kon ci CICES ñu am mbégte rek xanaa euh, dalal ko tamit di ko laaj yéenam ci bés bi nga xam te am na ñu jagleel ko moom si Issa ñu di nuyu di leen ziar di ci fekkee tey bis bi suñu bëccëgu maam maam Cheikh ñëw ci turu Ndeye Sophie Camara première adjointe maire bu Parcelles Assainies li ñu indi nag bokk ci kër gi ak suñu wëllërante ak euh, Serigne Cheikh Issa Diène moo ñu indi di ñaan yàlla taxawaayam yàlla mottali ko li mu yéene ci ëtt bi yàlla defal ko ci tawféex ak taysir te ñu yàgg ko fi fekk ñu ngi ziar ñëpp di leen masawu coono. Ndeye Sophie Camara madame Lom. ba tey ñu ngi ci euh, jataay bi ak honorable député. waaw. di ziar baax baax na def. waaw ñu ngi am mbégte contentement rek di rafetu bës bi eh, suñu maam Cheikh Issa Diène dafa bokk ci kilifa diine yi nga xam ne am na lu ñu samp fii ci Sénégal eh, te ñun eh, fekkee bësam mbégte la suñu rawatina ñun ay doom yu bëri ñu ngi dëkk ca Parcelles Assainies donc man mi honorable député Mame le maire wax nag bés bi suñu bës la. waaw ñu ñëw teewee ko ànd ak imam Moustapha ak délégation bi euh, Ousmane Gueye euh, donc soxna Ndey Diouf suñu Moussa Dem ak euh, soxna Adja Ndiaye ñëpp def délégation daal di ñëw parce que nag wax dëgg yàlla nag moom suñu saa moom njabootam yi parce que wax dëgg yàlla moom ñu baax lañu ñu yarul lañu ñu bëgg diine lañu ah, ñu yar ñu yar xale yi ci diine lañu parce que tamit ñu ñu di autorité li ci bëgg rek mooy na ndaw ñi di sax di di sàqoo yar doomu am solo waaw ak ak diine parce ndaw moom defe naa ne euh, éducation de base boo ko amee rek di nga am lu bari këru diine yi nag loolu lañuy ñuy dimbale rawatina waa kër Cheikh Issa Diène ñi maa ngi toog jàkkaarloog benn sëtam ni wax dëgg yàlla muy nit ko yaru ku baax ku am ku am diine sëñ Cheikh ku baax a baax vraiment Euh, loolu daal moo tax moom euh, ñoom bu ñu bu ñu bu ñu xewle dañuy bàyyi suñu lépp ñëw nag teew parce que bés bi suñu bés la waaw yàlla na ko yàlla euh, yàgg saaxal suñu borom taxawu ko ah, suñu borom def ba nga xam ne lii moom mu doon loo xam ni ñu koy ñu koy ñu koy biral di ko biralaat rek at bu nekk am na solo waaw allahumma salli ala sayyidina Muhammad waaw honorable député Malick Kébé donc député de l'arrondissement des Parcelles Assainies donc euh, moo fi ñëwoon tey incha allah ànd ak délégation macha allah. am na solo macha allah euh, bés bi tak ku nekk xam na ne aussi am na njiit euh, koo xam ne moo ko taxawal amal liggéey bi di ci def liggéey bu mucc ayib. Euh, mu ma nekkoon ñu euh, ñi ngi ak euh, sëñ Cheikh mu fas yéene ci sànni ay cadeau aussi ci préparation ak liggéey bi nga xam ne jot nañ ko amal ak ponk bi nga xam ne taamu nañ ko taamu nañ ko di maam Cheikh Issa ak tarbiya mu nekk lu am solo. asalaamaaleykum wa rahmatulah mbokk yi ñu ngi leen di nuyu baax leen ziar Production télé bi nga xam ne moom journée bi ñoo ànd moom yéen ci journée bi ngeen bokk ñu ngi leen di sant bu baax te rafetlu liggéey bi. tey jii ñu nekk fii ci foire CICES ci liggéey Mame Cheikh Sa Diène muy journée culturelle bi euh, euh, bis mi nag ci tënk rek li ko waral mooy tur wi nga xam ni mooy kuréel gi muy jamheetu tawdiix wa nasri li injaazaati Mame Cheikh Sa Diène maanaam gëstu ak leeral liggéeyu Mame Cheikh Sa Diène ak mag ñu baax ñi nga xam ni ñoom la nekkoon ci Serigne Touba tey jii nag bis bi yàlla def ñu dara jaare ko suñu Balla Faali Dieng nga xam ni ku ne xamoon na leen ci ci ci ci seen diggante ñoom ñaar ci toolub sëriñ bi waaw ba nga xamee ni e, sëriñ bi am na sax benn bis am ku ñëw ni ko kat dama bëgg ñëw ci daara ji maanaam pour nga defar ma mu ni ko ah, defar de taxoo la laaj demal ca Balla Fall Dieng mu defar la ndax defar naa ko kon xam nga yàlla boole woon nag ci lu bare bare ba ci jumaay njaareem jéeg e, nam ndoxeet ak ci jamono yooyu ci 14 18 ñu xam ne yéeme woon na lool ci seen taxawaay yàlla def nag euh, tey jii bis bi di cinquième édition ñu ànd ci ak euh, mboolem ñi nga xam ne rek ñoom laa seqal kuréel gi xam naa euh, ci kanam rek dinañ ci gën a indi ay leeral yàlla def ñu am ay gan yu teen teew nii léegi sëñ waagaan seen mi xam naa xëy na danañ ci sànni kàddu ñoo nekk nii sama wet ngeen jóge ci léegi ci madame la maire Ndeye Sophie Camara di suñu jigéen ndeysaan di ku baax di ku bëgg Mame Cheikh Sa Diène waaye feggoo ko Malick waaw monsieur le député moom it ñëw noonu ànd ak délégation am ko délégation soxna Mame Diarra Mbacke moom sëñ Mountakha feggoo délégation bu dee Ablaye Niane docteur Ablaye Niane wax dëgg yàlla ñu ngi ñi ngi sant bu baax di am mbégte xam naa bu ko defee rek jox kàddu gi sëñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh waaw ñun moom ay ndongo lañu xam naa dañoo baaxawul bu kilifa yi waxee dañ ñoom dañoo baax rek ndax ñoom lu waay di wuti boo yemee ci ñoom mën nga ko am ndax surtout ko si rasulaay xeesu badaa boobu ñoom tegguñ seen tànk tey bu sëñ isaa dellu suwaatoon du soppi seen doxin ndax ko sëñ bi féetewoo sëñ isaa fu mu féetewoon sëñ ñoom ña nga fay féetewaa kër sëñ Tuubaa xool boole ci taalibe yëpp ñun amul lu leen sant leen gërëm ndax tey bés bu toll nii bu ñu xoolee ñun ñu dëkk Ndakaaru ni mu mel seppi la ne la boole nañ la ci pare yi kon ñu ngi lay sas di la liggéey loolu mm. ñun nag duñ jël lu dul sant leen wér wér mm. li sëñ Tuubaa waxoon daal mm. ñoom ñi ngi ci ñun de taamu nañ leen wax dëgg neex yàlla ndax gis nañ ci ñoom yar gis nañ ci ñoom taal bi gis nañ ci ñoom njàng bu mat sëkk ak defar waaw comme sëñ bi nag daf ñu wax ñun te sëñ Tuubaa rek ñu gëm mu nañu wala si moom na nga takkoog man ka am laa zaadu dañ bi daal jaam rabi yi ñel borom xaayi daal danook ndox ñoom loolu lañu gis si ñoom tegguñ seen tànk fa seen maam tegoon kon de ñun naw nañ leen wasalaamaaleykum wa rahmatulah taala jooy seex bamba jooy seex ibra faali na xalimaam te jooy seex balla faali ku xalimaam te jooy seex balla faali kanoon xoqal bukaa umooma jooyloo ala saadatina jooy balla keroog asamaaw yi jooy na ko wal arabi te jantaki weer wi jooy nañu balla feeli jumaa jafa taaxi njurbel jooy na yëkkat habibullahi lii yëpp ci ay xalaatam yu rafet la amee waaw dégg mooy Cheikh Balla Fall mu sëñ Alaaji Mamadou Fadal mu sëñ Balla Fall bi ñun sëñ yi yëpp jël nañ suñu carte jox ko ci ndigalu sëñ Modou Moustapha ji mooy suñu kii ànd ak sëti sëñ Balla Fall yëpp ñëw ànd ak talibé yi ku ngeen gisul rek ci jëmmam ngeen ko gis waaye xol bi ñëw na waaw moom moom nag mooy kilifa gi waaw ma ngoog waaw waaw bisimilah nga wax kii mooy Serigne Saliou Gueye moom Serigne Abdou Karim mhm. moom Serigne Balla Fall mhm. waaw moom moo fi toog jotaay Serigne Abdou Karim moom Serigne Balla Fall mhm. xalifa Serigne Balla ne topp ndigal te àdduna daa ko faale habibullahi moo jëkk dëddu duniyaa dëdduy soxnaam ba tey masuleena faale te boobale soxna kana mat na lay laa gomaay bu rafet la dàq na ay rijeeli keroog la ko bamba jës bu mu dem ci bëtin mu na aslamtu nafsi lil muwaali mu sax ca ndigal la tarbiya woo fa tuuba mu am at yu wér ku fa ñëw di yaale atum wasasin la del si di leen waar ña ngay mànkoo te naa bu ko kenn faale mu gàddaay njompi sañc këram di sikkar ñu tudde ko romb leen ko bu leen ko faale mu tudde ko daaru bàllaay gembe yaaram ñu naa dafa bëgge waaye bu leen ko laali mu naa maa donn balla ma fa balak doom xare kàngam ba dàq dameel di yaale ku weddi nga laaj dagam ya ñu boole sërxël ca kambuga won fa njompe fa balla faali tena ma donnu maam laay gembe ya maamam maam laay gembe maamam ñu def ay cadeau témoignage ci moom seen Cheikh rek di sant yàlla bu baax ci bis bi ni mu amee ndax euh, sëñ Cheikh suñu mag la ñu bokk bàyyi suñu ñaari bàyyi di ay doomu bàyyi muy suñu xarit teg donc kon dina jaadu ñu def ci moom ay ay seetu ndax alquran dafa wax ni fasalu ahla zikri in kuntum laa taalamuun bu ngeen xamul dee leen laaj ñi xam ñu mën waxaat wa ma zayidna illa bi ma alimna booy seede ci nit aussi dina fekk li ngay seede nga xam ko ñun nag li ñu xam ci moom bëri na depuis xëy na bi ñu gën a nekk tout tànk ñu doon jaxasoo mu nekk nit ku jàmbaar nit koo xam ne lii rek moo ko mos a ñor muy dajale ak boole surtout wàllu famille ci famille ñu bokk boo demee njenn yi nga xam ne ñun fi la ñu dëkk amu fa sens interdit ak kenn ñëpp lay jaxasool ñëpp lay maslaal ñëpp lay dem leen loolu moo waral tey boo demee ci tànt bi di nga fa gis mbooleem ñu sant jenn kër Cheikh yëpp man ci kër sëñ Youssou laa bokk moom ma bokk ci kër sëñ Baara ñaar ñoom ñëpp doomi Cheikh Issa lañu kër sëñ Abdou Latif kër sëñ Bas kër sëñ Mbàkke kër sëñ Abdou Salaam sëñ Cheikh Alim ñoom ñëpp boo demee di nga leen fa fekk kon day wane loolu moom ak mbaaxam la ndax famille mun nga ci bokk am na nooy mel soo wootee kenn du ñëw mais salle bi boo fa demee di nga fa fekk même ñi nga xam sa sant ñu jenn ay murit lañu wala omaana sax ñu nekk ay ay taalibe murit donc loolu li koy wane mooy dimension bi mu am ci yaatal ak mun a jaxasoo ak nit ñi donc loolu moom ñu ngi ko ci encouragé di ko ñaanal yàlla suñ borom sàmm ko guddal fanam te lafal ko cat ba li mu mébéte liggéeyal Cheikh Issa yëpp mu mën ko def moo jàmxee bi mu àndal yëpp jërë ngeen jëf waaw asalaamaaleykum euh, ñun ñoo ngi tudd Mouhamadou Moustapha Diop nekk euh, ci njaboot ci maam xalifa Niass Kaolack ànd nag fii ak euh, suñu xarit di suñu mbokk di honorable député El Hadj Malick Kébé moom lañ àndal fii ci bés bi waaw mag ñu baax ñi moom fàttaliku leen dafa comme ni ko woykati arab bi waxee rek ne inde zikri saalihin te tanazalu rahaman mu ne biñ leen di fàttaliku rek yàlla da ci basé wu taw taw yërmande bés yu ñu mel dañ ko war di ko yaatal di ko di ko pérenniser di fexe muy bari parce que ci bés yu ñu mel yàlla daf ñoo wax nañu inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin bés bu ajoo ci yàlla mooy tolloog mooy tolloog junne at ci bés kii bi bu ko defee nag ñi ñi comme que seen activité ci recherche bi ñuy nekk ak uti néeg yooyu daf leen di jaral ñu dugg ci lu nekk lu ñu mel bu ñëwee daf ñuy xet li nga xam ne bés boobu du bokk ci yeneen bés yi ba pare dina la permettre nga mën fi yàgg mais nga yàggee fi xéewal liggéey pour ëllëg mas di labat fa njompi mag balaa jël mu may la alal ku weddi nga laaj rijeeli defat miskin ya boole jirim ya nampal di may la ya jooy balla fayli di dencal doomi jiitli ya dooni baayoo di leen ko sanal di leen seetal ni wayli di leen may fas di leen may kër fa njur bel ku weddina laaj sëriñ jang balla faali habibullahi lii la saxal ci duniyaa ci réewi ndogal ba réew ma ni nan ko faale mu tarxiya ya tarbiya ya dikkoon ya loofan ya tarbiya jaam yafal way ya loofan fil misaali di dimbali moslukat ya di sàkk ay kër di gas ay teen di gor ay tool ni eeli wayaf te sawar gore gore fonki bokkam di dem ngénte ka fekkew xew di jaale amut ay wor te moo gën a wér ci duniyaa te fonki waxam ba mel ni ki suu kamaali lewet na ca kaw te tàng ca biir ni aw xal li xaalin soo jalaalin suu jamaali dër ba ni këng nooy ba ni nemm niw dër لبال أو ببال أو ببال سجاه من سجاه من سجاع لخال أو لخال خير خال ma wax fi la sayxu Balla defoon ca baawoon ca wax sa si ci adiyatu fi nawaali ba Bamba demee ilaa gànnaar da daa dem la daa seex Balla paate ma rijaali juróomi gëléem la booleeg sëf ya jox daam ñu ànd aki te ànd mbaam wa maali la daa saru saara daana siyaara dëhëran ni seex mu dundumbe duutuma denc maali junni ngóor dee ki saakuy ceeb la daa di yët seex bamba foofe lañ diggaale man ma jot daal sadd way te sa gis day xiw bi ma ngoy di sëñ Balla Faali Jëng ku sopp sëñ Balla Faali Jëng dafa li ñu màggal suñu jàmbaar ja jàmbaar la alhamdulilahi ah. man ma jox te daal di sadd way te tagg seexu bi ma ngoy kooka di sëñ Balla Faali Jëng sëñ Balla Fally Dieng ah. sëñ Balla Fally Dieng ah. sëñ Balla Fally Dieng ah. mbooloo mi ko sëpp sëñ Balla Fally Dieng di ko taxaw ci ko ñu màggal jàmbaari sëriñ Bamba jooje sëñ Balla Fally Dieng sëñ Balla Fally Dieng sëñ biir de fii te na ca kaw ay yow yaa fiiti ñëpp faw kaw sëñ Balla yow ku la am faw mu raw doo cuune sëñ Balla Fally Dieng sëñ Balla Faali Jeng ah. sëñ Balla Faali Jeng ah. yërmande kat la feese del ku sëgg ñëw mu fab si gil ah. sëñ Balla doo daqe doo daqe ajam yaakaar du tas sëñ Balla Faali Jeng sëñ Balla Faali Faali Jeng sëñ Balla kat la feese del ku sëgg ñëw mu fab si gil sëñ Balla du daqe du bodde ñun suñu yaakaar du tas sëñ Balla Faali Jeng sëñ Balla Faali Jëng ah. sëñ Balla Faali Jëng bu ah. jant fenkee ba selaw ah. ñëpp a ngi daw jëm ci nelaw moom muy doyaale moo fi raw penga nga ni li sëñ Balla Faali Jëng sëñ Balla Faali Jëng yërmaande kat la fees a dell ku sëggi ñëw mu foof sigil doo bode doo daqe ajal yaakaar ba sëñ Balla Faali Jëng Seex borom lagan Seex borom lagan ku sopp maam yi sëñ Mar Jenn defu lu ñu màggal Seex Isaa Cheikh Issa Diène Cheikh Issa Diène Cheikh Issa Diène Cheikh Issa Diène ku weddi lii demal la kan ku weddi lii demal la kan ah. ku weddi lii demal la kan ah. bàyyi Sidi Diène nag Sëñ Mbàkke Diène mooy mbër moo manu gan yaaram la wuute naak sa gën Cheikh ko ñaaj ci xarnu bi Cheikh Bamba ni woon Cheikh Issa Diène ah. Cheikh Bamba ni woon Cheikh Issa Diène Cheikh ku sa bu sëriñu sëriñ daam su ku sëpp sëriñ sëñ Moussa naan ku sëpp sëriñam sëriñ Daaru Ngañ Tandini ku sëpp sëriñam sëriñ Ali Sey Bamba ni war sixi saa jenn demal la gan dama ñëw ma fekk laak la fa gën yaa ma gënal ñafane yàlla ñëpp am jàmm sëriñ bi nag laq na ay jagle ci buur laq na ay kéemaan itam yu wóor a wóor sëriñ bi nag laq na ay jagle ci buur laq na ay kéemaan yitam yu wóor a na ay jagle ci buur laq na ay kéemaan yitam yu na ci jagle wax ak buur yàlla bokk na ci jagle du may na ci jagle wax ak yàlla bokk na ci jagle du moy bur yàlla bokk na ci jagle mbiram lenn du neen waxam jëfam yéeneem itam day tega yoon bokk na ci jagle dëkkaaleeg sun boroom bokk na ci jagle itam amul moroom jagle itam amul morom bokk na ci jagle dëkkaaleeg sun borom bokk na ci jagle itam amul morom bokk na ci jagle du faatu mel ni nun bokk na ci jagle du gis waaju ko man bokk na ci jagle liggéey loo ku ñu xam koo xam ni faatu na borom bee ma tëgëm bokk na ci jagle xamam nga xam gu wér la jëkk bindeef yi tayit dee su ko lor bokk na ci jagle xamam ga lay ñëwaat ba bis bu mujj ba ak lu fiy xewaat bokk na ci jagle du wopp bay tawat day wér di sant yàlla buur bi dul tawat bokk na ci jagle du sonn benn bis ngir kattanuk yàlla borom bii gën a fes man zanna nii bil layli wa nahaari zaataabin fal jahlu fil jihaari bokk na ci jagle du xiif ci benn bis ngir yàlla buur moo koy teral muy gën a mos bokk na ci jagle du mar du ti itam du jàq mbaa muy jaaxle it fu mu mën a jëm bokk na ci jagle lu muy xalaat mu am ci kattanuk yàlla borom bii gën a xam alama nii manin bari yata fatar wali yaquudu ma bi baali ya xatar bokk na ci jagle itam jinne yi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu mbokki internet yu Tawfekh Production di ñu bàyyi xel jamono ji ñu nekk en direct fii nga xam te moom di kon 6S euh, ngir amal juróomeelu édition euh, journée culturelle dédiée à Serigne euh, Cheikh Issa Diène bokkoon ci ñenn ci ñi nga xamante ni ñi ngi nekkoon ci wetu Cheikh Khadim ku tedd ki Serigne Touba Khadim Rasoul loolu nag ku nekk xam ne ne ku gis ndajeb murit ndajem taalibe yi daañu amal ay bernde daañu amal ay xéewal moo waral fi bernde yi nga xamante ni fi dañuy xewloo ndax sëñ Touba féefu am ndaje am rek da ngay gis ne xewal ga dafay bëri dañ lay jox kàddu gi rek euh, sëñ bi jenn euh, noo gisee bës bi sant nan baax baax aouzu billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar bu baax a baax bis nag ku ne gis na ni euh, ni mu mel ci wàllu mbooloo fi teew waaye lépp lépp nag li fi dajale ni ni mooy bëgg Cheikh Issa ak bokk ci li nga xam ni mooy mooy waa kër Cheikh Issa Diène jëpp ñëpp teew nañ fi kon nag lii ak sant yàlla la daal te di leen xamal ni bisub Cheikh Issa moom lu ci waay def rek lu ci waay def rek maanaam da nga gisu fayam. noonu muy ay kàddu yoo am solo yoo xamante ni euh, taalibe yi dañ koy yëkkati euh, waaye moom it nekk kenn ci njaboot gi nekk kenn ci waa kër Cheikh Issa Diène. mu mel ne euh, ginnaaw bi leen ziare yéen jot ngeen xew xewlu. nañ bu baax waaw xewlu nañ bu baax a baax ziar nañ waaw bis moom vraiment am na solo lool wax dëgg yàlla. am na solo kontaan nañ ci trop am na solo trop waa ñi ngi jógee nag Medina waaw ñi ngi ñi ngi dëkk nag dëkk bu ñuy wax Mbar xam naa ne moom <laughs> ragal naa suñu mbokk ngay doon <laughs> waaw waaw ñi ngi ci kontaan trop yàlla nañu ko yàgg a teewee waaw. di siyaare suñu sëriñ baabu suñu Moussa Dieng ndax sax instant dañuy soññ dañu ci xiir daal parce que xam ne ku tënnu jëmm ju ne Cheikh Issa Dieng loolu ñu dañ ci ànd ak daal wax fa dëgg yàlla ñu ngi koy rafetlu bu baax a baax daal. Euh, wax dëgg yàlla fas ñu ko yéenee manqué daf bu ñu fekkee daal incha allah rabbi lu ñu ak lu ñu jàpp danañ ko bàyyi ñëw teewe bis bi. donc mu nekk euh, ay témoignages euh, ci yenn ci ay taal yi nga xam ne ñëw nañ fii Euh, ngir euh, bokk ci euh, événement bi bokk ci cinquième édition bi nga xamante ni ñu ngi ko jagleel donc l'un des compagnons de Cheikhul Khadim Serigne Touba Khadim Rasoul Mame Cheikh Issa Diène donc qui a bénéficié de cette grade de cheikh donc toute la vie durant donc il a œuvré quand même pour le rayonnement de l'islam également pour la tarbiyatu ndax thème bi sax li nga xamante moom moom lañ ko duppe mooy Mame Cheikh Issa ak tarbiya mu nekk lu am am solo loo xamante ni kon incha ci Tawfekh Production xarale ak suñu réalisateur yu xarale dara dara du leen ci ump ndax tey c'est une journée spéciale dédiée à Mame Cheikh Issa Diène une journée qui en est à sa cinquième édition bi nga xamante ni tey ji à travers le monde entier ñi ngi koy seetaan ndax à travers euh, Tawfekh Production dara du leen ci umpu depuis le début de l'événement euh, à la salle mythique la salle qui abrite la conférence gis nañ bu baax a baax différents thèmes ont été abordés ñëpp ñëw seetaan ko également différents thèmes qui ont été par des experts en matière Donc, euh, dans toutes les localités, des nationalités différentes également euh, se sont euh, réunies aujourd'hui ici, donc euh, au CICES, cette salle mythique qui abrite euh, donc souvent de grandes cérémonies lañ ko waxee bu symbolique soxna yaa ngi nii ñoom ñooy dugg si ñoom it ginnaaw bu góor yàlla yi xewloo ñoom it dañuy ñëw xewlu soxna may jenn macha allah soxna may kaay kaay soxna may kaay jàpp si rek soxna May ñu ngi lay ziar. delloo ziar. naka xitma alhamdulilah. waaw waaw waaw gis nga mi ngi noonu di ziar ñëpp rek ziar téléspectateurs yi. leen sant bu baax ci seen teewaay si bis bi di la sant yow aussi Abdou gëj nañ gëj nañ gisee. waaw mu ngi noonu kon euh, Cheikh Issa ak tarbiya euh, mu doon loo xam ne lu ko ñëpp xamee la wax dëgg yàlla lu mu yar ay njabootam la tamit ndax euh, ku nekk xam na ni. bi mu ñëwee kër Cheikhul Khadim dafa ñëw si bis bi tarbiyu Serigne Touba si bis bi mu wàcc ko ci bis bi loolu rek dafa doy sëkk exemple waaw maa la raw. nekk ca macha allah jigéen bu bu bu mën li muy def xam li muy def nekkoon fo ñu nekkoon doon ci Lamfal TV en tout cas mu bokk ci délégation soxna yi soxna yaa ngi nii ñoom it dañuy dem defe ji seen xéwal euh, xéwlu ji ni ko góor yàlla yi defee ñoom it euh, barkeelu ci bernde yi nga xamante ni ndaje murit fu mu nekk fu nekk da nga gis ne euh, bernde yi dafay nekk yaa boo la soxna si nga baal ñu rek yaa ngi en direct ci Tawfekh Production tey bés bi lan nga ci mën a wax yéen surtout yéen hôtesse yi organisation bi. yonent bi di sant suñu maam Cheikh Issa Diène moo waral lii yëpp yëpp moom la ñoo ngi sant bu baax a baax a baax a baax ak ñu ko tuddee parrain bi waa ko suñu Balla Fari Dieng ñoom tamit taaral nañu bis bi sant nañu yàlla bu baax a baax. nga bokk ban ñu ngi ci commission accueil bi waaw. accueil bi nu metti na xaw na bëri coono. surtout parce que ren mooy cinquième bi miin nañu yoon bi daal miin nañu yoon bi parce que. méttiwul daal te tamit euh, gan yi yombalal nañ ñu lépp alhamdulilah ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. jërëjëf merci beaucoup en tout cas euh, euh, mi ngi nii ba tey la les délégations jigéen ñi ba tey ñu ngi fi euh, soxna si mu mel ne bés bi mucc na ayib. julli ci yonent bi salaatu wa salaam ñu ànd ak Modou mu nekk Masaalikul Jinaan Modou Gueye bokk ci famille wu Daalube Serigne Balla Faali Dieng ñun ñëpp ñu jur ko nekk moom Masaalikul Jinaan man maay jëwriñu soxna yi Masaalik ma ànd nag ak waa Masaalikul Jinaan yépp ñëw wuy si Modou Gueye. Ah, tax war naa tax jigéen ñi ñun ñëpp soxna jaara la ñuy rey waaye tey jii dégg nañ loo xam ne xam nañ ne euh, maam Fatou jóob royukaay la dégg nañ tey ci loo xam ne buñ ko xamul woon tam maam Fatou Diop royukaay la waaw bis bi nag ne ci diggante Cheikh saa Diène borom ñeen nekk Lagan ma am ci mag ñu koy wax ajaratu ñaaña jenn su ma fi taxawee sax taxawal naa ko fi ñoo ngi ñaan Masaalikul Jinaan kenn desu fa tey ñëpp a ñëw wuy si moo Gueye ci ndigalu Alaaji Mbàkke yu fay ndax moom lu xew ci yoonu murit dafa ma naan àndal ak soxna yi ngeen dem ñoo ngi koy gërëm moom itam di ko sant en tout cas merci beaucoup euh, mu nekk waa délégation Massalikul Jinan ñoom ñëw euh, teew si jotaay bi waaye tamit waa kër maam Seydi Limaamu Laahi Almahdi alayhi salaatu wasalaam ñi ngi fi ndax ku nekk xam ne umma islamique bi ñëpp ñoo ko bokk euh, am na koo xamante tamit moom mi ngi jóge ba fële nga xamante moom moo di kon Cameroun bokk ci njabootu maam Seydi Limaamu waaw soxna Marema la tudd ñu ngi koy ziar di ko dalal. maa lay delloo ziar sa ñaddu ziar naa la naka taw feexi waa ñëw ci bés bi ñëwal soxna May ak euh, sëñ Sidi Diop ñëwal nag suñu goro yu baax yi moom la ñuy accompagner tey si bés bi macha allah bés bi neex na benn yi bëri na ñaan maam Cheikh Issa Diène yàlla na yàlla yokk ay leeram tas ci barkeem ñu fekk ko déwén yu bëri daal incha allah. Euh, mu mel ne ba tey soxna yi am am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi fi soxna Seynabou euh, ginnaaw buñ ko ziaree dalal ko tamit fii mu sànni kàddoom ah asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ah di sant rek di kontaan ci bés bi rek ah, ndax Sidi Diop bi ñuy wax jukki mooy moom laa may soxna moo ñu moom lañu ñëwal nii tey jii ak bëgg Seex Isaa rek te yàlla tax nag waaw ndax Seex Isaa yaakaar naa ne ñëpp a ko bëgg waaw ñi ñaan rek bés bi yàlla nañ ko teewee déwén yu baree baree baree bari te yàlla may ñu fekke ak tal ak wér-gi-yaram waaw vraiment kontaan nañ kontaan nañu bu baax a baax a baax a baax waaw waa kay merci jërëjëf voilà mu nekk des témoignages unanimes à l'endroit de maam Cheikh Issa Diène xam naa rek euh, kon euh, dañuy euh, tënk rek après wéyal liggéey bi ndax dese nañ leneen loo xam ne daañu ko amal fële nga xamante moom moo di kon au niveau de cette salle mythique qui abrite la conférence la première partie de cette activité culturelle la dernière partie sera la cérémonie officielle sous la présence également de guides religieux mais également de d'éminentes personnalités euh, venues euh, de, de, de, de, donc d'horizons différents. Euh, ils seront là également de la partie euh, pour assister à cette cérémonie officielle euh, qui va démarrer tout à l'heure. mooy fa yàlla buur bi bind leen bokk na ci keemaan itam ñàkk lu dullu tuuti lool te daawul sa daw buur yàlla ko li nga xam ci xeeti may ak yi ngërëm ak yi mbégam muy sori may may gu mayat Cheikh Moustapha luy gën a rëy ci xeeti may ak yi ngërëm muy sori ay pour may ko li nga xam ci xeeti ak yi ngërëm ak yi mbégam mooy sori nay may gu teral faadilu lool may ko ba tey li yàlla xam ci ay ngërëm ak xeeti may buur yàlla may ko li nga xam ci xeeti may ak yi ngërëm ak i mbégam muy sori nay may gu mayat abdul ahad ci bit bu set di yàlla xam ci ay ngërëm ak may yi mat bur yàlla may ko li nga xam ci xeeti may ak i ngërëm ak i mbégam muy sori nay may gu mayat seex abdu qaadir may yu rëy te koy teral te koy musal muy gën a wéy bur yàlla may ko li nga xam ci xeeti may i may ak i ngërëm ak i mbégam muy sori may gu mayaat saalixu leer teral muy gën a xant bu set tey gën a béet yàlla may ko li nga xam ci xeeti may ak i ngërëm ak mbégam muy sori nay baaxoon nañu ko taxawal di ci fàttaliku jëf ak liggéey ak taxawaayu maam Cheikh Issa jenn at mu jot ñu tànn ci ab tomb boo xam ne dees koy mën a waxtaane ngir mu nekk njariñ waaye mu mën a nekk ab yóbbal boo xam ne dees na ko yóbbaloo waaye loola it du ca yem bi ko sëñ bi joxee ndigalul jumaa ji mu di ko liggéey te aw turam du ca fay mukk ndax la ko cay war a indil gàllankoor sëñ bi ko ci dindi loolu sëñ si dinaar jënd mi nett la ma ko mooy bi ko sëñ bi joxee fukki dërëm te laajaat ko ko ne ko ana sama tuut sa mu lamu ki wasam jox ko ko sëriñ bi ne ko dama bëgg nga am ndam ci jumaa ji loo xam ne saw tur du ci fay mukk te sama tur si boo ko ci defoon kenn duutu lu tudd loolu la doon bañ loola it tey xoolal diggante Cheikh Issa Dieng ak Cheikh Balla Fally Dieng radiyallahu taala anhu nga xam ne carnet bi nga xam ne moom la donga yi doon yor trésorier général bi moo nekkoon sëriñ Balla Fally Dieng waaye defar gi sëñ tubaa doon defar dooy doy na ci sëriñ tubaa nit ñëw na ne dama bëgguma defar mu ne ko defar taqoo te amatuma jot Balla Fally defar nañ ko loolu doyoon na xaas ci moom kii taalibe yi mbokk yi bàyyi xel Tawfekh Production euh, tey jii ak li nga xamante moo di fukki fan ak ñaar ci weeru mars atum 2023 ak junni ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ci ginnaaw gàddaa ak yéen salaahu ñu nekk fii ci CICES di barab bi nga xamante nag bii mooy juróomeeli yoon ñu fi amal ba bëccëg ñu jagleel moom Cheikh Issa Diène ku ko wax nag xel dem ci Cheikhul Khadim Serigne Touba Khadim Rasoul nekkoon jàmbaar nekkoon koo xamante ni liggéeyam bi yëpp daf koo taxawoon ak Cheikhul Khadim nekkoon koo bëggoon loolu nekkoon koo xamante ni daanaka li euh, daanaka euh, def ci lii di ab tarbiyatu maanaam ñi mu tàggat ci wàllum li nga xam ne moom moo di rek euh, alxuraan ak ci sas ay daara euh, ay li nga xam ne moom moo di kon ay kër mu nekk koo xamante ni maanaam li mu tabax ci doomu aadama kenn xamu ni mu toll ci ay jikko yu baax yoo xam ne ay xar baax la ko suñu borom jagleel waaye jagleel ko kenn di Cheikhul Khadim Serigne Touba Khadim Rasoul waral bés boobu tey ji jagleel nañ ko tamit thème bu am solo di Mame Cheikh Issa ak tarbiyatu ndax tarbiyatu googu dafa nekk loo xam tamit mandarga ci yoonu mouridisme xaadim Serigne Touba xaadim su doon na ko euh, jëfee doon ko doxee ginnaaw bi nga xamante ni waajuram Serigne Mamour Anta Sali dëddu na ba mu toog ak taalibe yi ba jox leen bataaxal boobu waaye tamit bokk na ci ki ñu koy jagleel sëñ Balla Fally Dieng nekk koo xamante aussi mënoo ko mënoo tudd maam si Issa Diène sa xel demu moom ak njabootam ñëw fi teew kon lii mooy bëccëg yi nga xamante incha allahu rabbi daañu leen koo baaxee dara du leen ci ump à travers cette plateforme suivie partout dans le monde euh, di Tawfekh Production en tout euh, dara du ci ump mu nekk bëccëgu am solo waaye ci jataay bi kilifa yu ñëw nañ teewee ko également daañu leen laaj seen xalaat ak seen gis-gis ak seen yéene ci bés bi euh, mbokki jullit mbokki taalib mel ne tey asalaamaaleykum kilifa gi ginnaaw bi ñu la nuyoo dina laaj Ah, ñoo ngi kontaan ci bis bi te di ci bëgg lool bis bi nga xam moom la sëñ seex Diène taxawal di culturel maam Cheikh Issa Diène bis bi nag dafa làmboo yu bari ndax maanaam bisub sëñ Touba la bisub Cheikh Issa Diène la bis la yit boo xam day boole mbokk yépp ñu nekk benn ndax kat am na ñuy jóge njeen ñoo xam daje nañ fi tey bañ ngi jéggi sant yàgg na la ci bis bi rek moo leen mën a dajal kon maa bis bi lem làmboo dafa bare tey sëñ Tuubaa dafa wax ne nee na maam na def ndaw ñi ñuy wax mag ñi mag ñi dimbali ndaw ñi te na def xol ñu soppante bis bii nag loolu sëñ di ñaan bis bi moo jëmmal loolu ñuy woy liggéey bi ngeen gis ne bu baax a baax taalibe yi jóge nañ fépp ci gox yi euh, wuute gox yi fasantikoo ngir ñëw ci cinquième édition bi nga xam ne ñu ngi ko jagleel kon euh, ki waaye ba tey ñu ngi yi nga xamante ñu ngi fi barkala jërëjëf euh, ginnaaw ban sant yàlla julli jën def sallallahu alayhi wa sallam maa ngi tudd Serigne Khadim Diène di sët ci saa Issa bis bi nag xanaa am te kontaante rek ndax it dafa mel ni Euh, fekk ko yàlla gërëm nga di ko fàttali loolu moom yaakaar naa ci la ñëpp war a nekk ndax sun borom moo ko digle fàttali ko fàttali ñi fàttali ñi fàtte woon alxuraan moo ko wax fàttali ko Cheikh Issa mel na ni mm, saxal wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la jërëjëf Cheikh Issa rek jërëjëf Cheikh waaw nan sant Seex Isaa rek loolu daal laa ci mën a yem ndax ndongo laa samay kilifa laa toogal moo tax laajal kilifa yi ñu gën cee yaatal jërëjëf. kilifa ginnaaw bu ñu la ziare fédération Kër Serigne Balla Fally Dieng mu nekk ki nga xam ne moom nañu euh, dara jël bëccëgu am solo gi ñu jagleel maam Seex Isaa Dieng nga am ci ban yëg-yëg. waaw sant bu baax a baax rek jërëjëf ci nawet bi ziar bi Seex Muru Muntaxa ñaanal ko baax sunu borom yàggal ko fi loolu tëgëral ko di ñaanal sunu yaakaar teg suñu sëñ mu mel ni kawam cër ci yoonu sëñ Tuubaa kon dañ ñaan baax rek bis bi rek suñu borom defuñ ci jàmm dañ ñaan Cheikh Issa Diène suñu borom dolli ay leeram taal ci barkeem di ñaan suñu yaakaar sëñ Balla Fall suñu borom gën a dolli ay leeram baax taal ci barkeem siyaare jabaroom gi fi nekk sëñ ñoom Mame Balla sëñ Cheikh sëñ Saliou Dieng ak sëñ Abdou sëñ Abibou ñoom ñëpp rek ñu leen siyaare bu baax a baax mel ni jotaay bi kon ñu ngi siyaare ñëpp rek di jéggul ci kàddu yi bu baax a baax juróomeelu édition euh, bi nga xamante euh, à travers le monde entier euh, donc ñu ngi Euh, donc euh, partout dans le monde ci suñu plateforme bi euh, ngir bañ a wuute également cette activité importante waaye tamit jigéen ñi dañ ci bokk soxna yi ñu ngi si jotaay bi nga xam te ñëw nañu kii aussi wane seen présence ci li nga xam te moom moo di juróomeelu édition bi ñu jagleel maam Cheikh Issa nañu ñu jagleel ko sëñ Balla Fally Dieng. man la soxna Ndeye Selbé Seye dëkk Ndiéné Lagane di premier adjoint au maire Ndiéné lagan bokk aussi ci kër sëñ Issa Diène précisément ak sëñ Baara Diène ah tey ñi ngi teew am mbégte bu baax di teew ci bis bi bis bi nga xam ne mooy cinquième édition bu euh, euh, semaine culturelle bu sëriñ Issa Diène mun naa ne le coordinateur euh, sëñ Cheikh Diène ak mbooleem mbokk bokkal liggéey bi ah di rafet lu tew bu baax a baax di ci am mbégte bu baax a baax a baax a baax di journée boo xam te ne yàgg nañ koo màggal ngir jëmmal sëñ Issa Diène ay jaar-jaaram ay ay ay taxawaayam ku ni sëñ Issa Diène nag a wax sëñ Issa Diène te waxoo Seex Ahmadu Bamba ndax jàmbaari Seex Ahmadu Bamba la joo xam te ne na sëñ Touba ba sëñ Touba wàccee ko allah ah, ñu am mbégte nag nekk doom ci kër gi nekk fi sët nekk fi taalibe aussi ah di leen jaajëfal bu baax ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax bëgguñu guddal tàggu yi kaddu yi. noonu di lu am solo ñu jeexaloo ko rek ak euh, sunu euh, yaaboy yaa booy mu mel ne yaa ngi jógee ba fan ñëw ci bës bi ñu jagleel maam Cheikh Issa Diène man maa ngi jógee Touba Sam bu xatal mu baara mhm. sant sëñ Balla Fall mhm. sëñ Modou Dieng mooy sama wajur mhm. di sant lool nag tey am mbégte lool ci bis bi ñu tuddee sëñ Balla Fall ndax ñun amuñu lu dul moom yaakaar lu dul moom tey ëllëg te seenub liggéey sell na sell googu moo ko sëñ Issa ak seenub ànd fekkunu fi waaye dégg nañ ko te ba léegi ñu ngi koy dox ndax seeni jikko ak seen ci sëñ Touba ñi ngi ñaan képp ku teew ci bis bi rek yàlla na ci suñu borom defar ci seen defaru ko ak xiiwali sëñ Issa ak sëñ Balla Fall ndax garab yi sax dañ naan Issa sëriñ bi naan garab yi nee ñu issa bul fàtte Issa suñ bàllaat defaru ko ne xam nañ ci moom lañ ko dégge ñaari mbir yooyu daje fii nag ñi ngi ciy ñaan képp ku fi teew yàlla la suñ borom defal taw féex yoo xam ne bis teew gi nga fi teew mbaa nga yéen fee teew moo moom man nag soxna May Jeng laa fi teewal sax sunu sunu sunu mag ndax moom mooy sëtu sëñ Bàlla bu mag ci sët yi dafa mënta ñëw nag maa ko teewal képp kuy góor war ngaa góorgóorlu njaboot ndax ëllëg lii dafa mat a sàmm te yoonu murid amul lu lii ndax jëf la jur fay mukk seen i jëf rek ci la ñuy tedd ba nag ni kon nag yal na yàlla dooli seen leer fayanu leen leen yàlla kàttanal tamay leen bet ci barkib sëñ Balla Fall ak Cheikh Ndial Seck ko euh, fii nga xamante moom moo di kon ci CICES euh, cette salle mythique qui abrite cette activité culturelle euh, qui en est à sa cinquième édition partout dans le monde ñi ñuy seetaan ni ñu ko waxee sànq maan ak sama caméraman bu xarañ bi bu technicien bu xarañ bi je fas yéene incha allah wéyal bi à travers donc cette chaîne YouTube cette activité euh, culturelle dédiée à Serigne Cheikh Issa Diène l'un des compagnons de Mame Cheikh Issa Diène sëñ Lamine Dieng ñi ngi lay ziar di la dalal ci Tawfekh Production yaa ngi en direct euh, ci euh, juróomeelu édition bi ñu jagleel Mame Cheikh Issa Diène jël ponk bu am solo Mame Cheikh Issa ak ak tarbeetu nga am ci ban jàngat waaw asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh Mouhamadou Lamine Diène Sahirul Khadim bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi tedd bi ñu ngi nuyu ne seetaan ñëpp di sant ñëpp di ñëpp di am mbégte bu baax a baax nag bis bi day bis bu am solo ah, ñu jël nag thème bu am solo ndax thème boo xam ne thème boo xam ne jamono ittewoo na ko lool muy tarbiya ndax tarbiya ci la nit di yëge ci yàlla mag ñi daraja ju nu am tarbiya ci lan ko amee jamono yi ni ñëw ci Serigne Touba jàng nañ ba fees dell ba xam la war a xam waaye kon ana lan moo leen indi woon ci Serigne bi weesuwut tarbiya mu di leen defar tarbiya nag boo ko doon tënk daa tekki baat bi ci boppam dafa tekki boppam ndax tarbiya boo ko xoolee ñeenti araf la taara ak raa ak baa ak yaa ak ak ak ak xoo taa li muy tekki mooy taxan raa gi di root baa gi di buub yaa gi di yalwaan xoo gi di addiya loolu boo ko tënkee maanaam mooy mooy moom la sëñ bi defaree ci seex yi lépp nag day dellu ci xitma ndax Serigne ba ñaar yi rek la woote mooy alxibaadatu wal xidma jaamu yàlla ak liggéey jaamu yàlla gi mooy uma eh, xaxtul jinna wala illa li yahbu dooni loolu ñu ngi ci woon waaye nag dafa am leen lu manqué woon loo xam ne nii sëriñ bu àgg ci yàlla moo leen ko mën a defar muy tarbiya tarbiya googu nag mooy xidma ah yoon wi boo ci génnee xidma génn ci tarbiya dara du ci des. ba tey ñu ngi ci fi nga xam ne moom la kon ci CICES euh, euh, fi ñu amalee euh, lii di journée culturelle dédiée à Serigne Mame Cheikh Issa Diène waaye dara jëlee ko soxna si ginnaaw bu ñu la nuyoo nga présenté wu rek wax ñu sa tur. waa ñu ngi nuyu bu baax di siyaar di ñaanal ñëpp jàmm ak salaam di ñàkk di ñaanalu ko waaw maa ngi tudd Soxna Njaaña Ka di sët sëñ Moussa Karom naan ku ne xam na digganteem ak Cheikh Issa Diène doon seex boo xam Cheikh Issa moo ko seexan waaw kon nag buñ fi teewee war naa man a ne wax dëgg yàlla ñun daal ñoo ngi sant baax di ñaan suñu borom defal ñëpp jàmm affaire bi neex na xumu na macha allah. ñaata yaa ngi ñëw waaw tey la sama première yoon waaye incha allah bu ko suñu borom dogalee bëggatuma ko manqué ndax euh, sama maam sëñ Moussa Karom naan Cheikh Issa ko seexal te àndam ak Cheikh Issa liggéey boobu jàmbaar yi ku ne xam na fa mu yegg jërëjëf. conférence am na am na ay waxtaan yu fi jot am lan nga ci lan moo la ci gën a marqué. waaw li ma ci gën a marqué mooy jàmbaar jën ci wone muy waxtaanu euh, waajur Cheikh Issa Diène ndax ñun jigéen ñi waxtaan danoo marqué ndax jàmbaar du liggéey liggéey bu rëy booy jigéen ñëwee toog war a roy roy ci moom fontu tànki mag ñu baax ña kon loolu mooy liñ ci gën a marqué ak suñu jàmbaar ja sëriñ naar jéen ñu wane ko ci wane ñëpp daal. Euh, soxna yi euh, rek euh, la laaj yaa booy ginnaaw bi ñu la nuyoo laaj la sa tur sa sant nga tàbbale sa yéene rek ci bëccëg yi nga xam ñu ko jagleel maam si Issa Diène. Cheikh Issa ko baax rek taalu mu taalube di taalube rek ku baax taalu taalube waaw ku bëgg sëñ Tuubaa maanaam Cheikh Sadio na sunu wasila wa yal na yàlla yokk leeram taas na ci barkeem topp sëñ Touba rek réccu lu ko doon xamee jenn yal na yàlla yokk leeram ak njabootam gi fi ba yal na ci yàlla teg loxo ñu sut ko fantale sa barke ba léegi way jur ñu wane ci maam soxna Marema Diop ak soxna yi nga xam ci réewu Sénégal eh, dañu mos a nekk royukaay tey jamono ji xaw na aw am yàquteg tuuti fan message ban bataaxal lan ngay ñaax jigéen ñi ñu gën a xamaa seen toogaay te xam ne ñoom rek ñoo mën a meññ ñu baax ñi. waaw xanaa roy ci ñoom rek ku xool fi ñu jaar day ak li ñu daj day li leen may li day xam nga foofu ñu fóolu wuñu fam lépp jox sunu borom. la ci Tawfekh Production euh, fan nga jógee ak euh, lan nga yëg ci bés bi. man Poste Thiaroye laa dëkk Poste Thiaroye laa jógee Thiaroye Géej fa laa dëkk ah journée maam yàlla neex na lool macha allah xol sedd na bég nañ loolu dëgg yàlla waa di sant li gërëm Mamy Sarr man nag daaw laa fi commencé ñëw. Ah, donc mu nekk lu am solo euh, di euh, bëccëg gi ñu jagleel moom Cheikh Issa Diène ba tey ñu ngi ci en direct di leen ko euh, àgge ci Tawfekh Production nga xamante ni kon jile fépp fi nga xamante ni caat na wërul këpp ñu ngi koy seetaan ci à travers également Euh, Tawfekh production bañ leen a wuute li nga xam te moom moo di événement bi abonné leen ngeen bës cloche bi am toutes les notifications recevoir également les informations yi am ci euh, li nga xam te moo di xeexoo bi euh, nga xamante ji macha allah nit ñi jóge nañ fépp ci àdduna nga këpp ci goxe fasantikoo ngir bañ ko wuute en tout cas ils sont nombreux ñi nga xam ne ñu ngi koy suivre en direct actuellement ci rawatina nos amis de la diaspora waa diaspora bi également ñi ngi bàyyi xel jotaay bi kon tey di une importante journée dédiée à Mame Cheikh Issa Diène May Diène soxna May yow euh, soxna May. waaw waaw ziaraat rek téléspectateur yëpp di leen nuyu bu baax a baax. waaw ñaax jigéen ñi jigéen ñi. waaw waaw ñu góorgóorlu rek waaw te xam ne àdduna amul solo fii lu fi baax jigéen moo ko fi def bu ñu xoolee ci soxna jaara rek Cheikh Issa mi ñuy màggal bu ñu xoolee way juróom rek dañoo war a góorgóorlu première euh, ak teggin macha allah. netaalu maam Cheikh Issa Diène lañ def ci weer bu mucc ayib boo xam ne mënees na ko teg ci kaw taabal bégale leen ko xam nañ ni buñ amoon lu ëpp lii danañ ko def ndax liggéey bi ñuy liggéey liggéey bu am solo la. kañ ciy jiital mooy soxna muslimatu jenn Chouaib soxna muslimatu jenn moom sëñ soo bu jenn moom sëñ Baara jenn ki ci topp di soxna bintu jenn moom sëriñ Siidi Xay soxna bintu jenn doom ci sëriñ Siidi Xay Mbayaar. moom lañuy jox kadoom ka ca topp di soxna ummi jenn moom sëriñ Abdou Kebe jenn moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara jenn sëriñ góoram it fokk ñu présenté ko mbooloo mi sët la nii ñu ci ñoo ci bokk yem képp waaye ñoom bañ nañ ko ba soxlawuñ dara foo leen fekk dañuy laxasaayu te ñi sëtu ci côté baay ak ñi sëtu ci côté yaay ñoo ci yem képp ñoo bokk Cheikh Issa ka ca topp di sëriñ xaadim jenn sëriñ xaadim jenn sëriñ maxtaar jenn moom sëñ ahmad daam jenn moom sëñ mbàkke jenn moo ko koy jox waaw keneen ki ci topp di sëriñ góor a ka tuubaa sikab mbaaw sëriñ góor a ka sëriñ góor a ka sëñ abdoulahat jenn naar moom itam jàmbaar la jàmbaar yi maam Cheikh Issa la joo xam ni wax dëgg yàlla du négliger dara ci liggéey bi ki ci topp di sëriñ waagaan seen beleel sëriñ waagaan seen beleel traverse moom la ñuy kii moom partenaire u euh, kuréel gi la depuis ay at mi ngi ànd ak ñun lu ne mi ngi koy def ci kuréel gi day andi ndox di joxe alalam di joxe lépp wax dëgg yàlla ñi ngi lay xamal ne njabootu maam Cheikh saa jënd gépp bëgg nañ ci yow. sëriñ Baye Fall Dione nag moom lim moom daanaka ku mu gis rek dina fexe ba dugal la ci daayira bi moom defe na ni moom kuy dox ku nekk alali ay Issa nga war a doon lim dugal ci daayira bi ci mbooloo kenn xamul nu mu joxe. yenn saa yi day joxe joxewaale soxnaam moom borom njënd rek lay nooyee ñu de ko xam ni kuréel gi ñu ngi lay sant di la gërëm jëf ji ngay jëf ci daayira bi kilifa yépp ñu ngi lay seetaan ñu ngi ñaan sa xiiwal yokk barke borom njënd sëriñ góoram it fokk ñu présenté ko mbooloo mi sët la nii ñu ci ñoo ci bokk yem képp waaye ñoom bañ nañ ko ba soxlawuñ dara foo leen fekk dañuy laxasaayu te ñi sëtu ci côté bàyyi ak ñu sëtu ci côté yaay ñoo ci yem képp ñoo bokk Cheikh Issa waaye xam ni am na loo xam ni mënta ñàkk te ay nit taxawu ko ñu volontaire jël seen lépp teg ko ci ñi ngi koy sant di ko gërëm di ñaan yàlla guddal fanam defal ko ay xéewal te may ko barke ci barke borom jenne waaw kuréel gaa ngi lay sant bu baax sëñ Gora te Seex saa lim liggéey ci kër Sëriñ Touba waxuma la ku sant Mbàkke ak ku sant jenn waaye ku yàlla sàkk muy nit jinne ak malaayika ñépp ko ko nangul kon nag ku ci yàlla booleeti wax dëgg yàlla war ngaa am fierté ci bokk ci ay saam sëriñ Abdou Latif nee na mi ngi leen di xamal ne moom la yàlla def muy Cheikh Issa ci kaw suuf mi ngi leen di xamal ne am ngeen gërëmul Cheikh Issa loolu nag la murit kepp di am murit bu faatoo mbokk yi dañuy ñëw di seere de ñenn ñi dañuy seere ne aka baaxoon ndax dëkkandoo lañ ñenn ñi neen ako nekkoon jullit ndax ñoo nekk ñoo bokkoon nekk ca jàkka ja kenn ku ne la booleek moom danga koy seere waa am na seere boo xam ne loolu rekk la ñuy dooye sëriñ mooy taxaw ne am na ngërëmul sëriñ Touba sëñ Latif nee na xaarut kenn ci yéen di wàcc mi ngi leen di xamal ne moom mi Cheikh Issa xamal na leen ne am nga ngërëmul Cheikh sax ngeen bokk ñaanal ko mu gën fee yàgg gën a liggéeyal Cheikh saa ci boole njaboot ji gën a liggéeyal Cheikh Issa ci liggéeyal Serigne Touba am ngërëmul Serigne Touba kon loolu mooy kàddu yi Serigne Abdou Latif waaw man maa ngi tudd Ibrahima jóg euh, nekk commission finance euh, journée culturelle Mame Cheikh Issa Diène. ren ngeen nekk ci cinquième cinquième édition bi ñu amal journée culturelle bi euh, mu nekk un événement majeur bu rëy boo xamante ni dafay laaj waajtaay sur la plan financier naka ngeen waajalee bés. waaw xam nga bis bi moom comme comme niñ ko doon waajalee rek waaye xam nga sëñ maam Cheikh Issa Diène amul ay tànk ginnaaw at mu jot rek day gën a yaatu budget bi at mu jot dañ koy multiplier par deux wala par loolu li koy waral mooy maanaam xir ak bëgg gi nga xam ne doomu aadama yi am nañ ko suñu sang bu tedd bi maam Cheikh Issa Diène euh, li ñu prévoir ren ci wàllu budget sava va tourner autour de deux dix millions dix millions la ñu prévoir moom mooy li nga xam ni li nga fi gis yëpp maanaam ci loolu la tënku ci loolu lañ ko lañ ko lañ ko prévoir daal li nga mën a jàpp mooy euh, am na ay fonds yoo nga xam ni yu amaa ama am solo yoo xam ne dégagé nañ ko ci bis bi ndax bis bi na fa def bis boo nga xam ni waaw jàpp naa ni waa Sénégal yëpp dañ koy xaar waa diaspora bi tam di ko xaar mu nekk bis boo nga xam ne soo fi ñëwee maanaam da ngay màndi ci xam-xam ci la vie et de Mame Cheikh Issa Diène nga xam ni kenn du moom waaye dañoo bëgg nit ñi xam mooy kan wisaare li nga xam ni mooy ay mbindam ba bépp doomu aadama xam suñu sang bu tedd bi mooy kan ay mbindam ñu jàngale ko ay jaar-jaaram ñu wax ko ba nga xam ni ñëpp dinañ xam maanaam sëriñ bi mooy kan su ko defee ku mel noonu da nga koy waajal niñ koy waajalee mooy nii rek ñu def dégager benn budget boo xam bu am solo bégal suñuy gan bégal suñuy pèlerin bégal ñi nga xam ne ay mbokku taalibe lañu nekk Cap Vert ak un peu partout Sénégal. fonds yi naka ngeen koy amee daayira yi la lettre euh, de soutien yi naka ngeen def ba réunir cette waaw fonds yi fonds yi. mooy li may wax fonds yi ci taalibe lay jóge ci taalibe lay jóge parce que dañoo am benn association bu tudd jamhiyatu tawdi wa nasri li injaazaati maam Cheikh Issa Dieng mooy mbooloo mi nga xam ni dañoo dajaloo pour wisaare leeral yaatal maanaam liggéeyu maam Cheikh Issa Dieng ci kaw suuf mbooloo moom nag macha allah dañoo am ay mbokku taalibe yow nga xam ni ak suñuy sang yu tedd yi ci nekk dañoo am Pastef am pas-pas am engagement am détermination ci lii nga xam ni moom la ñuy def mbooloo moomu muy cotiser parce que ku wax daayira wax ay fonds yoo nga xam ne da koy générer góor ñi dañuy cotiser jigéen ñi dañuy cotiser mu am ñoo nga xam ni c'est des bonnes volontés ñoo xam dafa dañoo aaju ci kër gi ñooñu tamit dañuy jàpp ci bis bi bu baax a baax a baax a baax ak suñuy xame ak suñuy kóllëre su ko defee waaye lépp day tënku ci njenne su ko defee loolu mooy li nga xam ni moom la ñuy amee ay fonds am nag suñuy yoo nga xam ni ay suñuy suñuy pexe la ah di di di di sponsoriser ay entreprises à travers des magazines yoo nga xam ni dañ leen di defal publicité su ko defee yooyu day am ay rentrée d'argent yoo nga xam ni dañ koy boole ci budget bi waaw loolu daal mooy li nga xam ni euh, ci tënk. moom moo moom mooy indi fonds yi. perspective bi mooy euh, li nga xam ni moom la ñuy def fi ñu koy def un peu partout dans le monde tey si CES lañ ko defee suba mën nañ ko defee Italie suba mën nañ ko defee France defee ko fépp ci àdduna bi ndax lii dafa nekk liggéey boo nga xam ni dafa war a law ndax maam Cheikh sa Diène faw faw doomu aadama yëpp dañu war a xam mooy kan te suñu borom jaaral na ko suñu loxo yi su ko defee ñun dañuy wasaare jàngaleem maam Cheikh Issa fépp foo nga xam ni nit war na faa xam maam Cheikh Issa rek dinañ fa yeggale suñu kàddu yeggal fa suñu jëf yeggal fa suñuy wax maanaam ñu def loo nga xam ni la vie et de maam Cheikh Issa Diène maanaam noppi yëpp dinañ ci màndi mbokki jullit yi mbokki taalibe yi mbokki internet yu Tawfekh Production lii mooy li nga xamante ni moom lañu leen indiloon euh, ci cinquième euh, juróomeelu édition bu journée culturelle bi ñu jagleel maam Cheikh Issa Diène boroom Diène la gën mu nekkoon kon euh, ci teewaab kilifteef yu bëri ci waa càmm ji di waa état bi waa kilifa yi diine kilifa yi aada taalibe yi jógee fépp partout dans le monde ñëw wu ñàkk a wuute jotaay bu am solo bi nga xamante ni ñu ngi ko jagleel sëñ Balla Fally Dieng nekkoon kenn ci ñi nga xam ne jege ñaalu Cheikh Issa Diène la ñoom ñëpp xamit ci keppaaru Cheikhul Khadim la ñu rek daanaka gindi ko mu nekkoon euh, bëccëgu am solo goo xam ne ponk boo am solo lañ doon waxtaane maam Cheikh Issa Diène ak euh, lii di euh, tarbiyo di wàllum yar wàllum teg jox teg taalibe bi si li nga xam te moo di yoonu sell wi a tarbiyatu ni ko Cheikhul Khadim doon defee mu nekkoon euh, conférence yu am solo yoo xam ne am na fi ci ponk ak i experts également am na ay décoration am na lépp sëñ Gana Messere tamit def fi conférence waxtaan na en tout cas mu nekkoon bëccëgu am depuis ce matin mu nekkoon tey ak li nga di kon euh, juróomeelu édition bi ñu doon ko amal fii ci CICES yemoo ko euh, mars 2023 yemoo ko rek atum junne ak ñeent téeméer ak ñeent fukk ak ñeent ginnaaw gàddaay yonent salaa salaam ak techniciens yu xarale yi àndoon écran bi euh, mboolem ñi nga xam te am nañ ay événements ñu bëgg ñu jàllale ko wala ay publicité en tout cas euh, lépp lu ngeen ci soxla dañ leen ko euh, jox ci anam gu mucc ayib ci Tawfekh Production ngeen di wéy di abonné bés cloche bi am notification yi dara bañ leen ci kon mbokki diaspora ak partout dans le monde wala di abonné ci Tawfekh Production lii mooy bëccëgu Maam Cheikh Ibrahima Fall journée culturelle di ñaan yàlla suñu borom ñu teew ko ay ati bi ci dajare la tabaraka famille, la seconde famille, la diaspora, euh, cette activité qui prend fin. C'était la journée dédiée à Mamcher Ibrahim Fall. sous le thème Mam euh, Issa euh, donc euh, cette journée dédiée Mam Issa Diène autant pour moi le thème Mam Issa et Tarbiya donc un thème important qui vient à son en tout cas ils étaient nombreux à venir à cette grande manifestation religieuse donc en ce jour de 12 mars 2023 une journée importante qui a vu la présence d'autorités d'éminentes autorités religieuses politiques entre autres même culturelles en tout cas ça en pour cette couverture médiatique